Boubacar Fall mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm ci xibaar yi gën a ca fas fédération bu boole syndicat yi ci wàllu paj mi nag nguur gi grève générale la ñu fas yéene amal altine ak talaata bi ñu dëgmal ne sax service minimum duñ ci taxaw li ñu laaj nguur gi mooy ñu tàmbaliwaat waxtaan wi ba ñu jox hôpital yi li ñuy laaj noonu la paj mi sooxee foofe ca Kanel amul gynécologue urgentiste ak anesthésiste naka noonu dafa manqué lool Kanel sax daanaka amul hôpital foofe sax kafa feebar dañ koy jël yóbbu ca maatam wala ca Agnam askan wi nag ji ci o njiitu réew mi justice moom la ndawi Sandiniéry Touba gannaaw ba ab xale bu góor bu am juróom-ñett at euh, labee ci ab bassin de rétention nag joxari baarama tuuma ab société ba fa ne di fa liggéey ci wàllu ay karo ba ta ci wàllu xibaar gàmm bu gàmm bu Medina Baye ca Kaolack ñàkk kaaraange waaye tamit jële fa ndoxu taw mi moo gën a soxal xalif général bu na Baye nag mu yëkkat yooyu lee kàddu ci teewaayu ministère bu intérieur ci ab CRD bu ñu fa doon amal ñaareelu pàcc xibaar yi ba tey tàggat yaram jënte ànd ak Cheikh Tidiane Diagne yéen kaay ak Serigne Saliou Seck ci technique bi Abdou Thiam Yacine Puy moo fexe ci digital bi asalaamaaleykum. dal leen rajo bi ngeen taamu RFM dañ koy tàmbaleek ab lenn ci bâtiment R plus 1 bu dal di màbb foofee ca Kaolack ca quartier Ndorong ñaar ñoo ñàkkoon seen i bakkan waaye ci jamono jii la ñu ngi toll ci ñeent ñàkk seeni i bakkan ndax ñaar ci fukk ak ñett ci amoon ay gaañu gaañu dañoo mujjee wuju seeni borom ñu wutali Sédhiou foofe nag ndaw yu yeewoo foofe ca Sandiniéry ca commune bu Karantaba dañu mer ba futtu gannaaw ba ab xale bu góor bu am juróom-ñetti at labee ci ab bassin de rétention euh, di nag loo xam ne nag ñu jàpp na jëfinu ab société bu yëngu ci wàllu miin nekk foofe ca Sindia moom moo ko dal di amal di fa tamit liggéey ngir ut fa loo xam da ko defaree ay karo ca département bu Goudomp ndaw yi nag di fa ñaan nguur gi taxaw ci yëf yi ba yëf yi daal di leer fexe ba aar gox ba Bakary Konte moo ñu koy leeral. Lamine Mandiang ndaw la boo xamante ne moom nag juróom-ñett at la am dañ ko fekk mu faatu ci benn zone d'exploitation minière nekk ci village bu Sandiniéry askan bi mer ba futt di ne dañu mer loolu entreprise Dwyfor boo xamante ne ñoom Sindian la ñu nekk ndaxte moo nekkoon di fa exploité ba pare nangul respecté contrat bi maanaam remblage bi Nembali Cissé moo yore kaddu askan bi fii ci diwaanu Sandiniéry. metti na suñu kaw fa metti yem ndax. entreprise bu fi ñëwoon pour liggéey yàlla def la ñu waxoon contrat la ñuy signé ak suñu autorité donc yàlla def contrat boobu ñu dem ba commencé liggéey mais avant liggéey bi li ñu gëmuloo population bi mooy que ne li ñuy liggéey bu ñu paree dañ koy suul wax nag dégg-dégg la laaj mais bi ñuy paree ci liggéey bi far yàlla def ba tey ji ñu toll ni suuluñu pax bi yàlla def taw ñëw taw fekk pax foofu yàlla def suñu doom suñu set suñu jerbaat mu dem moom ci àll bi yàlla def mu daanu ci pax mi tarxiis mu doon romb tarxiis dugg ci pax bi ndox bi yóbbaale ko parce que pax bi dafa xoot. ñoom nag mere loolu tey foor ñu bëgg nag yoon daal di def liggéeyam. mais li ki gën a ñaawaate mooy pax moobu fàttuñu ko ñu dellowaate à tout près de Sandiniéry ñu gas beneen pax bu tollu noonu ñu ngi ci kawam di ko gas daanaka parce que contrat boobu jeexagul fi ñu toll nii fu ñu jëm koo xamante ne à un kilomètre de Sandiniéry xale dee na foofu donc à cinq cent mètres de Sandiniéry le bilan ça sera quoi bëggoon nañu ñaan autorité yi ñu sol ci seen dal mais nag buñ ci jogul duñañ ci jóg jéem nañu lu bëri bëri yoon eh, jéem a jot responsable yi nekk ci entreprise Twyford nekk ci diwaanu Sindian wante loolu antuwul Bakary Konte Sédhiou rajo Futur Media. yeneen i xale toll ci ñaari téeméer dañ leen di faral di gis lu bëree bëri foofee ca mbëbës di ut loo xam ne moom lañu dundee ñu nag recensé leen ñi ko amal di waa Promojet jàpp ne nag faw ñu nas plan ngir jële fa yooyu les xale. Euh, ñu jël leen nag yóbbu leen ca lekkool di ay cadre directeur bu projet bu promotion gestion intégrée jëm ci koom-koom bu jóge ci mbalit fi Sénégal Ibrahima Diagne ma nga woon ca bërëb ca Malika ñu déglu ko ak ndongo ka mais aussi beneen volet bu am solo mooy ndaw yi nekk si biir décharge. il y a plus enfants qui fréquentent la décharge alors que leur place nekkul fii si décharge ba ñëw jëf aussi COPPA ñu yóbbu euh, ndaw yi nañu war a dem wala ñu nekk dans des centres de formation donc moo tax ñun nga xam dañu bëgg apporter solution structurelle xam ne day sax mais tey pour suba ñu dellu si si loolu cartographie nañ les de la petite enfance mooy ñi xam ne ñoom ñu war a ànd pour que ñu mën ñu gunge mën chaîne bi ba yegg si même ñi nga xam ni ñooy seen ay kilifa parce que ndaw ñi am na si ñoo xam ni seen ay sëriñ ñoo leen pour que ñu ñëw ut si donc ñi ay taalibe lañ donc ñooñu ñëpp war nañ leen mën a déglu waxtaan ak ñoom pour que ñoom te ñu mën a dugal seen loxo aussi si retrait des enfants au de la décharge projet bi euh, moo tax monsieur le président de la République moom si boppam moo ñëwoon le juin 2021 lancé projet bi fii si décharge de Mbeubeuss si loolu technique ñoo ngi siy avancé mooy ni que def nañ étude technique yëpp ba nga xam ni am nañ dossier d' appel ba lancé appel d'offre ba nga xam ni que fii ko ay diir dinañ tànn entreprise bi nga xam moo war a liggéey décharge de Rebeuss donc pour dire que affaire nekkatul rek ñoo ngi si kanam loo xam ni moo ngi tënk moo ngi si yoon ñu waxat leneen ci grève général bi nga xam ne fédération bu boole Sénégal ci wàllu paj mi ñoo ko ba fas yéene amal altine ak talaata bi ñu dégmal ñoom nag day syndicaliste li ñu nag bëgg mooy nguur gi taxawu leen taxaw li nga xam ne moom mooy subvention bu ñu yokk ñeel hôpital yi ñu sax jàpp na ca bés ba wala ñaari bés yooyee lii di service minimum sax duñ ko sax assuré comme niñ ko daan amee Cheikh Seck moom mooy porte-parole bu fed bu F2S di ko leeral ci téléphone bekk Jean Paul Ndour demoon Thiès rencontré militants yi mais aussi décentralisé pour waxtaan ak camarades yi li ko indi moo di euh, dañ doon évaluer mot d'ordre bi ñu defoon mooy cent douze yi passé ñu gis ni Sénégal bi yëpp pratiquement les les gens l'ont bien suivi beneen problème bi moo di ñu ne euh, il faut que état war a respecter li nga xam ne mooy engagement parce que boo signé protocole d'accord mu jëm ci mbirum indemnité yooyu joxe ñëpp ñi nga xam ne war nañ ci mën a am nañ mooy personnel hôpitaux yi nga xam ne hôpital moo leen fay ak ñi nga xam ni ñi ngi dépendre ci collectivité territoriale yi muy maire loolu lépp aussi gis nañ ni état amewoon na ay bor yoreel ko agent de santé euh, mooy mooy hôpitaux yi toll na ci vingt milliards te état remboursé wu te loolu signé woon nañ ko ci accord bi depuis mois de ba tey defuñu ko leneen di jëm na ci aussi gis nañ subvention yi mooy li nga xam ne état da koy jàppale hôpitaux collectivité yu bees bu nu dem rek lu nu leen indil ñu enregistré ko nanu fexe dans les commissions ñu changé waat subvention yi ñu jox hôpitaux yi ñu mën ko yóbbu ba soixante milliards loolu moo tax ñu ne ñun nag du ñu toog di seetaan ñun amuñu amuñu véhicule de fonction ñun amuñu ligne de crédit carburant ñoom ñi am ligne de crédit carburant ñu jox leen ay oto ñu am seen i fonds taxaw bañ ñu jox xaalis ba pare ëlbatiku ñoom daal di daggalaat seen bopp ci nar bi lu rëy ay trois cent mille ñu ne loolu nag jaaduwul loolu tax ñu taxaw ñu ne dañuy jàkkaarloog ñoom léegi nag dinañ décrété grève bu quarante huit maanaam altine ak talaata bu loolu nag doyul yàlla xam na ni même service minimum bi ñu doon assuré dootuñu ko assuré mu ngoog euh, pàcc mi noonee la sooxee ca département bu Kanel ca Matam euh, ndax foofe gynécologue euh, amuñu ko naka noone urgentiste ak anesthésiste dafa doon doon bu góor Euh, foofe sax képp ku fa feebar dañu lay jël yóbbu ca mattam ndax Kanel amul l'hôpital ñu ci woon ak njiitu réew mi Ali Bandé ña ñu koy leeral. ay jigéen yuy matu yu ñàkk seen bakkan ay tout tànk yuy dee bés bu ne ay mag maanaam yàpp ci ay oto charrette ambulance di wut fu ñu leen mën a hospitaliser situation wér gu yaram bi ci département bu Kanel 4 doy na waar moo ne sax de centre de santé bi fii inauguré nañ ko ci atum 2011 waaye boo ba léegi service urgence bi ak bloc chirurgical bi mu ngi ñu tëj ràpp ci biir centre de santé bi nga xam ni moom menn mooy bërëbu fajukaay bu gën a mag ci département bi lu dajul ci soow saa yu ñu soxlaa ci am pàcc algasum basum di am ndaw notable ci Kanel la lu métti la lu ñu naqarulu la xoolee département Kanel ba mu daj amul gynécologue am nañu bloc opératoire waaye tey euh, amuñu anesthésiste cinq postes de santé ak euh, base de bi ci département maladie systématiquement bu ñëwee dañ leen di dañ leen di référé directement Ouro Sogui fan yi mu Ouro Sogui ak Matam daf leen mënatul jël sax ba Agnam leen di diggante Kanel ak Agnam au moins mën na quatre-vingts kilomètres loolu nekk lu ñu métti naqarlu la trop donc moo tax tey euh, population bi euh, jóg di ci wax mënuñu aussi seetaan suñuy population suñuy jigéen suñuy jabar di dee ci wasin waral nag ay laaj samp ci anam kilifa yi ci wàllum politique rawatina ñuy fayee ci nguur gi dañu leen dummóoyu leader yi ak élu yi ak yooyu alikali ji fa la nekk ñooñu buñ lu ñu war a def euh, kon yëf yi du fi toll du dem ba ay personnel de santé wala population bi ci boppam jeunes yi ñooy jóg di ci wax ñooñu sax ndax xam nañu lu tax ñu fale lijjanti problème population ñu mais dem ba mbir mi toll fii te ñoom yàbbi wu ñu waxuñu ba léegi. tey jii tembe nag ab woote wàllu dëgg la askanu kanel di yëkkati fëgg seen gémmiñ am yaakaar kott ci njiitu réew mi di président makki Sall mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. na rajo wi. tey ci ajuma ji premier ministre Amadou Ba ak ministre bu commerce nag dinañu nekk ci ab hôtel fii ci Ndakaaru ngir daal tàmbale waxtaan bi wala consultation yi jëm ci dund gu cher gi xool nees koy ñoŋale ndax askan bi dañ cee lottu retard bu juróom benn weer laata ñuy. Euh, samp fond bu jëm ci euh, euh, décentralisation loolee nag dafa daal di jaaxal lool Mame Thierno Dieng moom secrétaire général bu liggéeykat yi ci collectivité territoriale foofu ca Louga bokk ci FGTS mu nag jàpp ne retard am na lool ci payoor gi. naka noonu ay chantier yu bëri moo ngi foofee kenn mënu koo fexe ba yeggali dafa daal di taxaw kenn na koo xam ne dafa xelam dafa daal di màcc ci wàllu centralisation ne lu mooy sax retard yi fow nguur gi daal di yokk payoor gi Mouhamed Jojo moo ñu koy leeral. yéexaay la boo xam ne ñëpp la ëlëm maam Thierno Dieng secrétaire général des travailleurs des collectivités territoriales bu région bu Louga bokk ci FGTS moom jàpp na ne yéexaay bi ci mise en place bu fonds de dotation de la décentralisation am na ay njeexital ci seen liggéey bu ñuy amal bés bu set. trésorier yi nga xam ne percepteurs yi wala receveur régional yi doon nañ ko def ñoom ñëpp ku nekk que sa seuil am na ñoo xam ne leble nañ ba leble plus de quatre-vingts pour cent de leurs avances 29 a des collectivités territoriales qui pourront les parce que amatuñu avance de trésorerie. entreprise yu ndaw yi nga xam ne tamit am nañ ay contrat ak collectivités territoriales yi nekk nañ jamono ji ci ay jafe-jafe. jox ay entreprise yoo xam ne dañ leen a joxoon ay marché ñooñu commencé seen ay marché def seen ay décompte ci kaw table comptable yi kenn mën leen fay entreprise yooyu tey dañuy obligé tëj wala ñu dàq leen employé fonds de dotation ak fonds d'équipement territorial téeméer boo jël ci TVA bi ñuy collecté ci biir réew mi yépp juróom yi moom lañ ko jagleel waaye loolee dafa néew bu ñu sukkandikoo ci xalaatu càmba sek xam-xamam màcc ci wàllum décentralisation donc tuuti la wu collectivité tuuti na aussi pour euh, collectivités yi mën si am équipement yu doy ak infrastructure surveillance yu doy dèjà lan ko daan jox mooy am problème surtout ren moom li gën bare mooy retard bi la ñu bare ba léegi mënu comprendre atum ren ñu nemmeeku ab yéexaay lool ci li nga xameen mooy mise en place fond de dotation ak fonds d'équipement bu collectivité territoriale yi situation bi ñu mel am njeexital lool ci fonctionnement yu collectivité territoriale ci biir Sénégal gi yëpp Mohamed Diop jaajëf yàggatul gàmmu ñu yegsi ci bu ci waaye nag am nay kàddu yoo xam ne jóge na ca Medina bàyyi li ngeen soxal foofu nag mooy ñàkkub kaaraange waaye tamit ndoxu taw mi jóge fa ak yeneen daal yoo xam ne xalif général bu tedd bi bu Medina bàyyi nag yëkkate na ko teg ci table gi ci teewaayu ministre bu intérieur ci ab CRD bu ñu fa doon amal leexaleeku max mbaw ñu ñëwaat léegi-léegi laata sax Umar mbaw ñu waxaat ak li nga xam ne euh, moom mooy euh, enseignants yi nekk ci position de euh, ñoom daanaka ba tey kenn jëlu leen ci ab formation walla ñu daal di ko tàmbale ñoom nag euh, dañoo naqarlu taxawaayu njiitu réew mi daal ci seen i problème leeral yi ak Babacar Côté yoroon seen i kàddu ak moom jaxa jombi ñun ay enseignants lañu ñi doon xaar formation bi ñuy tudd mise en position de stage booba tey formation mise en position de stage état la ko fooy li ñu wax gum li ñu dégg mbaa bokk moyen ñoom ñu ne problème de moyen financier la ñoo loolu mënuñu ko dégg ñun parce que loolu ay caaxaan la dama amu fi problème de moyen état moo bëgg a sacrifier enseignant yi léegi nag dañu leen bëgg a alerte alerter parents d'élèves yi nañ jóg xeexel seen i doom parce que ñun seen doom yi la ñuy jàngale qualité bi ñu bëgg bu ñu ko bëggee formation moo koy indil nañu jóg ñoom it nañ bàyyi toog foofu noonu seeni i seen seen i ruq di seetaan ba pare di xes enseignant yi loolu du mbir mi moo tax ñu ñëw fi tey di alerte opinion bi yëpp nañ digg bu fekkente ne nag état lii taxul ba ñu ñu réagir fan yi di ñëw grève de faim illimité lañu la la la ñuy la ñuy def fii ba pare précédent dangereux bi bu mar nar a am nag le seul responsable état la. ñu wutali Medina Baye foofu nag am na loo xam ne nag daal leen soxal lool laata gàmmu di yegg si mu mel ni ñàkkub kaaraange ak euh, ndox bu bëri ba fa ne moo leen gën a soxal na fa jóge la ñu bëgg loolu tamit euh, xalif général bu Medina Baye ku tedd ki yëkkati na ko nag teg ci table gi ci teewaayu ministre bu intérieur ci ab CRD Oumar Mbow moo ñu koy leexal. li fi inquiétant rek mooy euh, la ñu gën a dëgg ci bile ndaje. ñàkk kaaraange bi tere nelaw comité d' organisation famille religieuse bu Medina Baye yemul ci loolu kot ndaxte mankum assainissement bi itam doon loo xamante ni luy metti na ci jamonoy gàmmu gi di xamle maire ville bu Kaolack di Serigne Mboup. léegi tamit état bi xalaat bu baax a baax à l'avenir pour des voies de contournement wala loolu ak ak ak assainir dëkk bi ak def ay route ci biir dëkk bi parce que dëkk léeg-léeg route nationale numéro un Kaolack la nekk numéro cinq Kaolack la nekk te ñoo daje ci gouvernance bi. donc je lu am solo la. mu doon nag ay njaakre yi nga xamante ni bi ñu sukkandikoo ci jawriñ bi ñu dénk wàllum biir réew mi du ci dal Antoine Félix jomm di xamle ne jël nañu dogal yi yépp ngir rek ñu amal gàmmu bu am solo. bi ñu saytoo nag mbir mi xool ko bu baax gis nañ ni li ci ëppoon solo ci liggéey bi jàll na ci suñu ginnaaw liñ ciy dëgmal nekk ci nawet bu jeexagul am na loo xamante ni dafa laaj waaj taxawaay ak tamit gunge dégg nañ bu baax ci wàllu euh, hydrocureur yi ak pompage yi taxawaay biñ ci war a continuer di am ñu mën a àndandoo def gàmmu bi. yile kaddu nag neex lool. ki jiite délégation ñeel gàmmu bu Kaolack Serigne Cheikh may Cissé nekk itam ki yore kaddu xalif bi ne kontaan lool tax nag muy ñaan ngir Sénégal am jàmm. Sénégal bu jàmm Sénégal bu démocratie Sénégal bu liberté bu boo xam ne jàmm daf koy matale. bésum juddu Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nag dinañ ko amal juróom-ñetteelu fan weeru octobre bi ñu dëgmal ñu amal ko ci jàmm ak salaam ci réew mi yëpp nag doon li nga xamante ni gouvernement bi def na ko muy def RFM dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou Ba. aywa bisimilah tàggat yaram. dañu koy daal di door rek wàllu lu tefes geek ci lu jëm ci tournoi COSAFA ñu koy amal ci Afrique du Sud Sénégal nag dañu ko daal di invité ci googule euh, tournoi ñoom nag tey jii ci suba gi maanaam file kii fukki simili juróom dañu daal di kon ko soobu seen demi-finale seen diggante ak ñi nga xam te ñoo di waa Uganda. leneen li nga xam ne mën nañ ko ci wax rek moo di Sénégal ci ñetti match mu jot amal yëpp daf leen daal di gagné dugal lu tolloog ñaar fukki but ak juróom loolu nag euh, boo xoolee taxawaay du Diallo di seen entraîneur am na ci solo loolu loolu moo di kàddu Ngalla Sylla moom mi doonoon yi jamono entraîneur bu équipe nationale bu Sénégal jamono ji nag di dal di jiite équipe bu Maroc ñu déglu ko ci micro Youssouf Bodian man jóge naa fi liggéey baa ngi wëy d'ailleurs que ñoom ñu ngi see benn tournoi boo xamante ñu ngi gagné seen i avec la manière donc affaire bi continuer di gagné seen i mais nag euh, ñu may ma si sens bi tuuti ma xaw a ñu bañ ñu éviter ma daal man ma éviter leen bañ daje final. Sénégal bokku leen poule certainement peut être mu ngeen daje ci peut être demi final wala final. Sénégal kay ñun dañ koy daw man moom moo amoon lu ma gënal damay daje Afrique tey jii nii mu ngi dajeex Maroc gi ma nekk nii mu ngi dajeex Nigéria goo xamante kenn du ko présenté si biir ko équipe bu mag la mais bu fekkee ne daaw ñëwuñu ñoom bu ñëwee ay joueurs costauds lañu mën football euh, ñëpp xam nañ ne Malawi équipe bu bees la kenn xamul lu ñuy indi donc euh, Mozambique moo organisé te daaw moo final donc ma nekk si poule de la mort mais comme ni ma ko waxee rek dinañ dem aussi. def suñu kéemtalaay kantan pour def kan bu baax. Ngalla Sylla di entraîneur bu équipe nationale bu Maroc bu beach soccer jamono yi nag ñoom ñu ngi fii nii ci Sénégal ngir waajal Coupe d'Afrique ba ñu a amal ci Mozambique ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre bi ñu daal di dëgmal euh, moom nag yëkkati ay kàddu jëmale ko itamit ci équipe bu Sénégal mi nga xamante ni fii simili yu néew incha allah ca Afrique du Sud seen digg ak Ouganda lay daal di waa Mozambique. bu lu weesoo ñu daal di waxtaanee wàllu euh, football ci terrain yeeg lii di euh, tirage au sort bu championnat d' Afrique des nations Algérie 2023 ñu ne ko euh, ñu koy tuddee CHAN jàppale nag Sénégal gannaaw ba mu toogee ab diir daanaka fukki at juróom-benn jot participer ci gile compétition daal na dellu ci ci bopp mi tey jii nag ci ngoon incha allah danañu xam fa la ñu féetee ak gannaaw tirage au sort bi nga xam te ne danañ ko daal di amal ci njiitalu kii di Patrice moom mi nga xam te moom moo daal di jiite confédération. fédération africaine euh, bu euh, football bu loolu weesoo ñu daal di waxtaan itam ba tey wàllu football ak championnat européen yi di reprendre ni tey jii gannaaw euh, ba ñu daal di bëree ndax fenêtre internationale bi nga xam ne ñu ko doon amal ndax jogante xarito ak ay match officiel ñeel équipe nationale yi tey jii nag ca France ci match avancé neuvième journée ci bu 19 jotee di heure Ndakaaru diggante Angers lay daal di doon quatorzième Olympique bu Marseille deuxième Guédiawaay bi ñoom itam ñi ngi seen huitième journée tey ci ngoon 18h30 danañ ko daal di kon bokk door diggante Bayern Munich bu Sadio Mané ak ñi di waa Bayer Leverkusen cinquième au classement Bayern Munich nag jamono yi moom nag fu mu féete ci classement bi moo di eh, cinquième place ci championnat bi ñoom nag eh, seen diggante ak ñi di waa Bayer Leverkusen ñaari eh, wala bokk benn poñ moo daal di dox seen diggante bu loolu weesoo Seydou. ñu daal di waxtaanee wàllu handball ak lii di Coupe d'Afrique des Nations ba ñu nar a amal ci wàllu jigéen ñi fii nii ci Sénégal dañ ko daal di amal juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre euh, ci lu jëm nag ci loolu sax Sénégal moom démb ñu doon amal jogante xaritoo seen diggante ak Maroc ca France ba ñuy amal kooku le Sénégal moo ca daal di am ndam 35 à 24 euh, ñoom nag euh, gannaaw ba match bi jeexee ki nga xamante ne moo di seen entraîneur. Eh, di eh, Yassine Messaoudi di doom Maroc yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci googu lay jongante ak itam ci eh, poule Sénégal bi nga xamante ni danañ ci daal di yëngu ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations ñu déglu ko. c'est un groupe euh, euh, avec euh, trois. groupe la boo xamante ni dañ ko rek def si ñetti pàcc yoo xamante ni ngir xool adversité bi Madagascar nag équipe la bu bees ci wàllum contexte africain bi ci loolu nag mun nañ jàpp ne dafay rek soxla temps bu bëri ngir nekk équipe bu compétitive ci loolu nag foog naa ne moom moo gën a oyof ci groupe bi Côte d'Ivoire moom tamit dafa nekk di relancer wu ndaxte dafa taxawal ab projet bu bees moom tamit dina soxla temps tuuti. ngir rek euh, gën a màgg te it ay joueurs locaux yu bari ñoo fa nekk te seen niveau baax na lool Cameroun nag jàpp naa ni comme que moom mooy vice champion d'Afrique en titre Ah, moom jàpp naa ni daal ci groupe bi mooy euh, équipe bu gën a soxor ci ñun moo tax nag dañoo war a farlu bu baax fi mu ne nii kon ñoo ngi fii ci France ngir def ab stage bi nga xamante ni pour ñun am na solo am nañu ay joueurs yu yees lépp nag ngir rek xool nan la ñuy def ba équipe bi gën a taxawaat amaat stabilité amuñoon sens nag gisee ci weeru mars bi ñu génn ba léegi. ci bile occasion nag dina tax ñu amaat esprit d'équipe gën a yeesalaat jeu bi jàpp naa ne daal ay bés bi dina tax euh, ñun ñu gën a xamante ngir rek waajal ñetti match yi ak it tournoi international bi. trois matchs et un tournoi international. jëwriñ gu bees bu yore wàllu takk yaram bi di Yankhoba Diattara ma ngay wéy di amal. Euh, nemmeeku euh, ci fédération yi yëngu fii nii ci wàllu sport bi ni ki démb ma nga woon nag ci stade Demba Diop foofu la nag fédération yi bëri ña nga ca yu ci mel ni fédération basketball karaté volleyball ak sport travailliste euh, moom nag euh, gannaaw loole seq na waxtaan ak ñoo ñëpp daal di nag yëkkati kàddu ni danañu amal ay palais des sports régionaux ci réew mi ngir bu ko daal defee sport bi ñu gën ko mën a wéyal ci anam yi nga xam te noonu lañ ko daal di bëggee moom Yankhoba Diattara sax nee nañu tey jii ci ngoon dana daal di amal jeno euh, ak ñii di waa CNG de lutte ca arène nationale tey jii ci ngoon ci ajuma bi ñu koy amal foofule euh, ca Pikine kon bokk Seydou. fi nekkee daal yamale xibaaru takkat yaram. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor wóor. xibaar ñeel Tchad dañ ci ànd ak Fama Dione. daleen ak jàmm juróom-ñaareelu édition festival international panafricain Ngexoox daañu ko tàmbali ëllëg fas ko wéyal ba ñaar fukki fan ci weeru octobre gii di ñëw thème bi ñu tabb nag moo di les défis de l'essor d'une industrie africaine war nañ ci amal ab conférence débat ab foire ab exposition concert ak yeneen i xew-xew ñi nga xamante ne ñoo koy amal janoon nañu ak taskatu xibaar yi démb ca Parcelles Assainies Mame Astou Kane mu toll si juróom ci diggante Sénégal ak Somone localité bi nag nara amal juróom-ñaareeli édition festival international boo bu Ngeexoox la ko wund nag bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diédhiou bokkoo ci structure jeunesse interconnectée et fusion d'Afrique moo di jëmmal njàng mi jaarale ko ci entrepreneuriat ak ay perspective de développement ngir xëyub ndaw ñi. di dinañ fexe ñu yóbbu ko fépp fi nga xam ne xalaat nañ ne bu ñu yóbboo xalaat yi nga xam ne dajaloon nañ foofu dina am ay réaction que fii ñu bëri da leen di jox mémorandum ñu dugal ko seen trois yi am suñu garab yu baax dugg ñu ay lël pour waxtaane naka lañ ko mën a defaree ba ñun ñu mën cee faju sans pour autant ñu nattee ko ci tubaab bi lépp li nga xam day jóge ci suuf loolu mën nañ koo am ba nga xam ni dañ koy doxal yoon parce que jeexital bi yëpp mooy ñun ñu dem ba ndóol jóg fi festival bii nag naam dinañ koy amal chaque année bu nu sukkandikoo ci Abdoulaye Diédhiou moom mi di wax ni événement bi ci ay conditions yu metti lañ koy organiser ñun amuñu ay source de revenu amuñu ay nit yoo xam ne ñoo nekk ginnaaw amuñu ñuy financé avec des conditions difficiles ah am lu ñu bëgg te lii maire Ngexox moo ci waroon jiitu commune Ngexox waroon na mën a yëkk somme conséquent ak ay accompagnement bu ëllëgee ku ñëw ci festival rek di nga xam ne ah Ngexox am na événement bu mag bu fi am chaque année. ci juróom-ñaareelu édition événement bi nga xamante ni renommée internationale la comité d'organisation bi di woo cadre secteur africain yi gëstukat yi ak investisseurs yi ngir ñu gën a dugal seen loxo ci seen festival bi nga xamante amal benn fan jàpp ñaar fukki fan ci weeru octobre bile. viatique donc confinement mooy téere bi nga xamante ni suñu naataango Ibou Diouf génne na ko ci waxtaan wi seq ak Amadou Sabarba journaliste bu télévision Futurs Médias bi dikkaat na ci lu tax mu bind ci coronavirus bi ñu déglu waxtaan wi. boo nee viatique mu ngi mel ni nga nekkoon tukki. wala nga ne ci béréb bay dem ci sa njaboot ut loo leen loolu la ñu waxee euh, viatique wala sërica comme dañu nekkoon ci ay jamono gannaaw boo xamante ne mbas mi dafa lëmbee woon. Ah, mu mel nii dañu nekkoon ci beneen sphère nekk ci yeneen bërëb ndax say activité xawoon tàggatembe mënatoo dem mënatoo dikk nga toog ci benn ruq loolu dafay mel ni euh, ku tukki. booy delluwaat ci dans la vie normale war nga ut loo xamante ne da koy yóbbul ñi nga fekk. dafa mel ni ci misaal loolu la. viatique donc confinement maanaam gannaaw confinement bi ñu nekkoon suñuy activités yi ni ma ko waxee léegi am ay jafe bi ñu delluwaat tamit dans ñu ut loo xamante ne buñ fa yeggee jagleel ko askan wi dafa war a doon loo xamante ne tamit da leen di jëriñ lépp aju nag ci mbas mi di coronavirus ak niñ ko dundee. ci samedi ji la livre bi euh, di génn. waaw dix heures bu toftalee fanweeri simili. waaw waaw may wax nag euh, ni ma ko waxee léegi. fan la sax. Euh, Harmattan la nekk ci VDN bi. Mhm. waaw livre bi nag maa ngi koy jagleel suñu mbokku alpulaar ak joolaa yi. <laughs> moo la war waaw balaa kenn di jënd moom. Uh-huh. dañuy da leen di jaay ba pare. Uh-huh. suñu mbokk yi mbokku séeréer yi. daa ngeen ko dégg ni mu gën a yaatu ëllëg ci samedi gi mooy doon ganu xalam ak Amadou Sabar Ba jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon seen chronique culture di daje altine ak jàmm. Ndayan Lagos International. NCA Assurance. TDST Touba Darou Salam Karo. Okayar ndox mi neex te sell. Gambrendi et la Beauty. Malaysia Yumu. Home Choice Sénégal. ak mark bi di Total Tools. ñoo leen may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck. dal jàmm école ubbi na. tax l'observateur dugg ci marché bi di xool. kaye yeeg big yeeg livre yeeg saag yi fan la njëg yi toll. yéenekaay groupe Futurs Médias bi ne. juróomi fan ci weeru octobre bii di ñëw. ci la école di ubbi ñeenti millions élèves nar a tàmbali seenum njàng ci atum ren mi. waaye lu ko jiitu faaw waajuri ndongo yi jëndal seeni doom ay fourniture. loola itam yamoo ko jamono metti yi cher. daanaka lépp a yokk. lool laal ñu ni la déet. l'observateur ne ñi ci am ay ndongo yu bari lu gàtt gàtt juróom-ñetti fukki junni ci xaal CFA ngir matali seen fourniture yu doom ñi xam ne nag dañuy taaba taaba fi mu toll sëgg sëngeem lañ def ndax seenu fit dem na journal u 15 angle bi ne Cheikh Oumar Anne mi ñu tabb yees mu jiite njàng mu suufe meeg mu digg doomu mi lii pàcc la bu njëkk boo xam ne war na caa defi jéego ngir mën a dégg daali ci atum njàng mu yees mi Vox Populi ne Cheikh Oumar Anne kay nee na njàng mu suufe meeg mu digg doomu mi li di lépp ba noppi jaar yoon yéenekaay bi ne waaye nag lu ko jiitu xam ne ndoxi taw yaa ngay wéy di ca tëmb ba léegi loolee itam nekk beneen ponk boo xam ni jural na leen xel ñaar xel ñaar ak toog ci donkaasi gi munta ànd tribune yéene kaay ne banque mondiale li nu gisal réew mi moo di ëllëg gu lëndëm ci wàllu dund gi ndax njëg yi cher nan te njaboot yi ñoo ngi ci ay jafe-jafe lii quotidien mel ni ko naan ab xiif ak bekkoor moom mënta am ci réewum Sénégal ndax am nañu pétrole ak gaz waral ba àdduna ci boppam ñoonu teg bët indien yi itam ci ñi nu teg bët lañ bokk grand place ñoom moom du saf ne ñoom moom bi ci réew mi ndax nag bi nee na nu leen neex lañ koy jëfandikoo jël di ko soppi ba mën koo yóbbu bitim réew réew mi fi la Casamance nekk le soleil national ne lu jege ñaari millions ngi mètre carré ca Casamance te mu amoon ne ndell noppi nan ngir dindi ko fa delloowaat yooyu la dëkkuwaay askan wa fa yeewoo nekk xibaar boo xam ne Ansou Sané mi directeur général ANRAC moo ko wax wax ji lëmb réew mi barki démb démb ak léegi moo di mbiri amnistie Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall te njiitu réew mi di président A def ci enquête ba gis ne amnistie Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall yëngalaat na géew bi rawatina ñi nga xam ne si ñi ngi am lan teg wàllum yoon ñu boole ca Barthélémy Diaz ak Ousmane Sonko Walf Quotidien moom Ousmane Sonko ak Aminata Touré seenu bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 léeragul yéenekaay bi boole ci samp laaj ne loxo président Macky Sall du ca génn journal L'Info ne élection présidentielle yu atum yi kay bu pënd bi wuree yooxu lan la ca mébét ak lii mu def lan lay wundu le quotidien mel ni ko naan am ne siyeekay ku nu ko def xamal ne lijjanti problème politique moo ko tax a jóg journal bi boole ci di fàttali loi d'amnistie fi jot a jaar ca président Léopold Sédar Senghor jaar ci président Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall journal bés bi la jour moom xëy def ci pàttali gu yaatu ba ci Khalifa Babacar Sall mi attaqué woon ca kanamu conseil constitutionnel loi Ibrahima Isidore ñu koy wax loi Ezzan nekkoon loi bu fesoon ca faatug maître Babacar Seye waaye itam lettre bi président Léopold Sédar Senghor Senghor bindoon Amadou Cissé Dia xalaatu rado ak forum du justiciable ci mbir yi amnistie le journal ne li ñu bëgg amnistie Khalifa Babacar Sall ak Karim Meïssa Wade fii ak élection présidentielle yu atum 2024 ku jéggi booloo wala ñu tasaaroo ba faaw li nar a tasaaroo ci réew mi fan yi nu jëm moo di transfert d'argent bu yees flash la tudd l'observateur ne Birane Ndour mi directeur général groupe Futurs moo ko taxawal te nee na at mi di jeex dinañ tàmbali yi nekk jiñoon viol yéene kaay ci réew mi bàyyeegun ko ba léegi les éco ne Kaliphone kay kaso la jëm ndax naka fi mu toll liñ koy toppe moo di coups blessure volontaire di maanaam dóor nit ba gaañ ko ci ak tayeef njombe li am te nekkul tayeef kay ca Touba Ndorong Okas ga ca Kaolack la amee libération yéene kaay ne benn immeuble R plus moo fa daanu journal bi yokku ci ne ba fii kenn xamagul ñaata doomu aadama ñoo ca faatu waaye nag lu gàtt-gàtt wàññi nañ fa ñetti doomu aadama yu ca ñàkk seen bakkan Ndayan Lagos International NCA assurance TDST Touba Darou Salam Karo Eau Kayar ndox mi neex te sell